jaa jëf tey jaa jëf tey sama gars yi Mister Shake la maa ngi Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen ci benn benn vidéo ci Ousmane Sonko parce que dañu wax ne moom ak Anna Diamanka dañoo divorcé waaw loolu nag information bu doy waar la léegi dañuy wax ci Ousmane Sonko ak Anna Diamanka Tange Tandian moo génn mu wax loolu mais aussi dañoo gis ne temps yi Pastef dafa bëri problème trop ak activistes yi maa ngi leen doon artu di leen artu ba tey ñu gis Californie Californie lañu gis xamuñu ndax vidéo bu bees la vidéo bu bees lañ duróol muy saaga Ousmane Sonko lan moo tax Californie di saaga Ousmane Sonko koo xam ne dafa yàgg xeex ak Ousmane Sonko ngir waa Pastef ñoo génn di ko saaga moom nak mu mer mu ne muy fayu mu buy buy Ousmane Sonko lay vidéo intense lay mais on va d'abord parler des rumeurs de divorce entre le président Ousmane Sonko et sa femme Anna Anna Diamanka sa jeune femme n'est-ce pas euh, qui est tout simplement selon Tange Tangian, le résultat de du scandale du complot à suite Beauté avec Adjissar, la fille qui a accusé le président Sonko de viol. Parce que tant que dafa génn mu ne Adissar Ousmane Sonko moko ko wax ne Anna Diamanka ba eu un problème avec Ousmane Sonko ben jour eu un pour avec Ousmane Sonko dafa sol une nuisette bu rouge bu te Anna Diamanka aji Sarr moko wax Anna Diamanka nak ba mu aji sar wax loolu ci a ah la kon ci la xamné Ousmane Sonko euh, daf ko trompé daf trompé da ak même dara sax si Anna Diamanka effectivement peut corroborer cette histoire de nuisette rouge, cela simplement sera une preuve pour Anna que, au pire des cas, Ousmane Sonko était en train de discuter de sa vie privée avec, Omer, de, discuter euh, sa vie privée avec une masseuse. Au pire des cas, il y a une relation amoureuse, peut-être une relation sexuelle entre Ousmane Sonko et Anna Diamanka. Lorsque la tension en wax Anna dafa obligé d'aller di ñibbi kër <coughs> je m'excuse les gars je m'excuse il n'y a pas de fumée sans feu waaw parce que parce que Ousmane Sonko Ousmane Sonko tay dañ ko gis ci conférence de presse yana a marre mu Anna Diamanka mu wax ne dafa am ku wax ñom ñaar dañoo divorcé wala nekkatul ci kër ga kan moo wax muy muy procureur de la république parce Gueye Sonko nee Sonko nee am kilifa moo wax ne Gueye daf ko bureau kilifa ko bu Sonko ndax Sonko kat ko

mais bu fekkee ne dafa dem dem di marché goudi ko ne ko dem réunion par exemple ne dem réunion le président Ousmane Sonko mi dem sud bété parce que dafa na wax Anna Diamanka damay dem ñu ñu ma sama parce que ma dem na ci chinois dem na ci coréens jënd na yew. jënd naa ah, graisse Grèce, ba ma nekkee xalé mënul dañ mais Anna bu démé par la suite Anna se rend compte que son mari était dans un, dans un salon où il y avait des, des, des jeunes filles qui le massaient mais ana ah loolu mën na ko métti ba mu ne day dem kër et après loolu suñu yoon nekku ci Ousmane Sonko xeex bi muy xeex ak Sénégal ak li muy seq ak jabaram dafa wuute Ousmane Sonko nit la c'est pas un prophète maa balaa may dee nag ñu mel ne ay seeni seel nan, nan. lan Seydina Ousmane Sonko mu sell mi Seydina Ousmane Sonko mu sell mi yoy la ñu wara bayyi di wax Ousmane Sonko c'est un homme nit rek la il n'est pas parfait comprendre nga seeni seen ma ko déglu mu ne Ousmane Sonko comme politicien waaw ci affaire yow askan mom moom nee Ousmane Sonko comme politicien daf ko xol comme serigne daf ko xol comme khalife général waaw Pasteur. Ousmane Sonko bu bu bu bayé. di comporter comme khalife général mom nee day bàyyi Ousmane Sonko yooyu la wara war a jël ñu teg fële gis nga Ousmane Sonko vie privée suñu yoon nekk du Tange li nga wax même bu dee dafa am même bu dee dafa divorcé mais bu wa ana kooku ana la concerné parce que ana bu fekkee né da nga am jëkkër du melni Ousmane Sonko ah nga am jëkkër du melni Ousmane Sonko Sénégal yépp bëgg ko mu nek un homme exceptionnel nga bëggante ak mom takku ko jëkkër yow ya koy motali même bu dee li ñuy wax dëgg la. dafa dem mu ah, kii di ko bës ñu euh, mu tuddati euh, aji saar gaa ngeen baal ma gaa ngeen baal ma waaw même bu dee dañu dem aji saar dafa dem aji saar di ko bës comme ni ko mati turapam di waxee naan dafa dem ñu xoot ko ci si xam nga mati mati moom lammin bi ni mu tuutee noonu la lammin bi rëy nee na Ousmane Sonko dafa dem ñu koy xooj ci ndox mu tàng ci si même bu dee loolu dafa am mais ana jamanka jigéen buy sëy ñun li ñu leen di wax mooy jigéen yaay mottali si jëkkër mais du ne lii rek salaamaaleykum maaleykum salaam rek rek nga ne da ngay daw dem si kër yaay mën nañ comprendre jabaru maître El Hadj Diouf mu daw dem kër yaay parce que bakkanam bakkanam xajoon na ci yëf yi ndax kër gu ñu taal kat ah ba pare sa jabar fat ku mel ne um, aji Sarr loolu mën nga ragal ni nit ñi mën nañ ñëwaat songaat sa kër nga daw mais ana Diamanka boo amee jëkkër ju mel ne Ousmane Sonko dafa mel ne da nga am jëkkër ju mel ne Nelson Mandela dafa mel ne da nga am jëkkër ju mel ne ah, nu mu tuddati ah, Thomas Sankara wala Patrice Lumumba dafa am ay sacrifice yoo war a def ana Diamanka ñun li ñu lay wax mooy àndal ak sa jëkkër bu dee rumeur yi ñuy wax dëgg la ana jàng ñun sax gëmuñu ne loolu am na ndax ñun li ñu président Sonko wax la ñu gëm. parce que ce président Sonko ni mu waxé ana mi ngi ci kër gi ba légui lutax benen jabar bi tok ana jamanka di dem bu lol deug la ana ñun patriote yi ñolay wax gennal nga def vidéo nga wané né yow yaangi ngi sa kër jëkër parce que genre rumeur yi baxul bu ko jaré xeyna sax jaru ko bu dee yaa sa kër jëkër peut-être jaru ko mais nak gis nañ la nga ñëw taxaw ak Ousmane Sonko ci ben meeting waaw lolou lañ mënon wax Tange Tange la fi ne koy fi a vidéo Je ben nit bu am bu Amérique mais bo ba ñu vidéo yi vidéo Tange bu Ousmane Sonko bu vidéo mais Ousmane Sonko mais Pastef nañ wax ci Californie Californie gis un Californie vraiment en très en colère parce que un califone frustré muy tontu wa Pastef parce qu'il il paraît waa Pastef dañ ko saga, wa Pastef yàgg artu baye len activistes yi ngeen di tangal seen xol li c'est une perte califone bu baye Pastef c'est une perte pour Pastef bu len xeeb activistes yi na fi Pastef man saaga pour man du dara saaga pour man du dara waaw parce que Ousmane Sonko ñi ñi me andal bok ci yeewu askan bi ci système bi lañ bok Ousmane Sonko yakanté nak ñooñu lu ñooñu mu ak ñoom kon Californie bu ne la wax pour pour pour pour euh ne mom dafa mer mais mais vraiment mënoon na ñak été saga du dara du tak fenn Californie yag na fi génn def ay vidéo di défendre Ousmane Sonko Il la fi convoqué ben boo xam ne aji sar la won tons aji sar ki la ko doon woowee tonton bu dëkk Suisse mu def interview bu doy waar wax ne Adji Sarr affaire bi complot la mom yëgoon nako lolou loolu moko fi def break news mu am ay vues yu bëri Californie man yag naa ko seetaan muy dal ci wa APR mom nak mel ko mr Shake bi ne man Pastef la Californie waxul né mom Pastef la dafa né Sénégal lay xeexal mais man mam sen la njëkk gis mu def vidéo di wax né Kalifone da doon saga gëmuma sax gëmuma mais nak ma fen du maam seen tamit du wax lu deug ci la tok ma gis Adamo génné vidéo bi Adamo man bugguma sax gis ak euh euh activiste du xulo sen bir motax Kalifone bam fi amé problème ak Adamo jéemoon sax dugg pour arranger man mi sax ndaroon naa ci am ay problème comprendre nga fofu la gisee nak Kalifone muy wax mais ki di mam sen ki di Kalifone ki di Fatoumata Danso yàgg len

beaucoup de def dem jotna TV mu def vidéo deux minutes mu Mr Mister Shake pour promotion mais man sama xaliss tamit duma jël 1000 dollars diko jox ay nit yu man Sonko nga jox ma 1000 dollars ko def. mais man limay def dama bëgg def genre challenge nga xamné képp ku nek diaspora bo ils may Sonko 1000 dollars nga may ko 1000 dollars Ils may 200 dollars nga may 200 dollars man lool ont ci djublu man xaliss du jaar ci man Sonko Shake ak ñu Shake. njaagu Sonko maa ngi leen di gërëm ci xaalis bi nga ne da koy def ci man xam nga pour jàppale Pastef comprendre nga merci man la Sonko man la président Sonko numéro baa ngi nii yónnee fi xaalis bi bu ko defee suba suba suba ma yónnee ko xaalis bi loolu rek laa wax ñu commencé ma dal am na benn jigéen bu tudd Awa Diouf ah ne ma monsieur Cheikh téyel sa xaalis soxla soxlawuñ sa xaalis Ousmane Sonko du def loolu mais bu ko Ousmane Sonko deful. man damay proposer rek benn moyen bu woor pour pour woné ne xaalis bi dinañ mais Ousmane Sonko bu ko deful mais après man sama 1000 dollars dama koy téye parce que ñun tamit duñ ñëw di jéma a jàppale Pastef ñen ñuy saga di ñu xass parce que Californie non lay waxee Fatoumata Danko dégg na dajalé na xaalis bu bëri jënd ay carte mam bu ko jox lool mam sen moko wax bu ko jox wa Pastef Pastef bañ maam seen a ko wax té mam sen ngi nii dal Californie te ñëpp xam nañ ne Californie ak Fatoumata Danso ñom ay xarit lañu. waa Pastef ci boppam ñoo war a bàyyi siis yéen gañagu leen dara ñun ñun laay wax gañaguñu dara ba pare ñuy siisanti ci biir activistes yi dañ leen soxla Kaliphone dafa am audience dafa mën a wax léegi bu ñu sàgganee ba APR jël ko ñun ñooy perte Mati Trois Pommes nii la ñu xullee ba waa APR jël ko nii la ñu ba waruloo xeeb kenn même Françoise Hélène Gaye am na doon demee nga jël leen comprendre nga man nag man moom du ma mës a dellu APR jamais jamais mais nak saaga yi moom bëgguñu ko fi la tok le 8 mars ma wax len Ousmane Sonko waruloon bàyyi Ousmane Sonko waruloon bàyyi Macky Sall rëcc mais wa da ngeen ma saga man comprendre naa Californie ci ben côté d'accord ma saga Californie mais da ngeen ma saga saga yu bon yo xam ne yow loolu boo ko déggee boo déggee yi ak xas yi Sénégal ci bopam làmmiñam moo ñaaw man maa ngi nii dama ne damay may sonkoo mil dollars no ah damay way Sonko njaag sonkoo dama am benn way bu ma way ma génne ko depuis at ma koy way nit nit ne ma man damay yalwaan Sonko li tax ma ne damay may 1000 dollars yi léegi léegi nii lool nit koo ko tax billahi wallahi taala sénégalais moo soxor mu ne man li tax ma way Sonko te so way boobu bëgg naa ko génne si semaine prochaine peut-être bëgg naa ko génne dem na dem studio defar naa biit bi def lépp mu may xas mu ne. man géwal laa xanaa man géwal laa damay damay dama bëgg Sonko may ma xaalis man man maay jël sama xaalis may ko Sonko looloo tax ma def challenge bi sénégalais moo soxor waa Pastef war ñu xoolaat suñu bopp war nañu xoolaat suñu bopp ku d'accord ak lu ñun rek ñu saaga la foo leen ko teg fan ngeen ko teg bàyyi leen saaga yi ngeen di saaga nit ñi bàyyi leen bàyyi leen xaste ñun dañu ñëw pour liggéeyal Sonko dañu ñëw pour liggéeyal Sénégal ku nekk ak sa méthode man Pastef la mais Kaliphone bu ko nexe munu du Pastef kay soof mais ñooñu dañ leen wara reconnaître Ousmane Sonko wa Pastef dañu wara di jël téléphone di wo ñom Kayis di wo ñom Kali ñu xam ñom ci lañu ñu bokk mais di siis ay nit di xàjj ak seen Ousmane Tounkara yeen a ngi koy woo di ko di jox ay information c'est sûr parce que laaj bi muy def da lay leer ne Ousmane Sonko sax tuddu nako ko benn jour Ousmane Sonko tuddu nako ko Pape Alé Niang tudd yéen may dégg dafay leer ne keneen ki Issa Diène daf lay leer ne waa Pastef yéen a ngi wax ak moom Jimmy dafa leer ne yéen a ngi wax ak moom bàyyi leen xàjj ak seen bi kay foofu li il fait un travail exceptionnel man monsieur Cheikh bu leen ma woo soxlawu ma poste soxlawu ma dara mais ñii li ñuy def man defuma ko waaw ñoom Kaliphone bu ñuy wàcc ñu leen jàpp man sax mën na am bu ma wàcc Sénégal kenn du ma jàpp parce que waxuma fi sax ñoom Kaliphone li ñuy wax ak maam seen li ñuy wax

Macky Sall ñëw ne list benn bokku yaakaar waa léegi ñun murit ñun murit léegi ñun lan la xanaa ñun duñu ay citoyen ñun Cheikh Ahmadou Bamba la ñu gëm xalif bi li mu wax lan la ñuy ànd xalif bi dafa ne benn list mooy am mooy listam la kon léegi listu xalif mooy liste benn bokk yaakaar kon léegi xalif bi benn bokk yaak bennoo bokk yaakaar Macky Sall lay liggéeyee loolu loolu la Macky Sall bëgg wax non ñun ñun ay murit lañu bëgg nañu dégg nañu ndigal trop waaye waaye a ah, xalif bi moom Macky Sall il faut que ñu ñu yemal ko place am dem Touba di di di campagne di wax fi mako mom moom dugg na fii Touba mom nañ ko ba paré Macky Macky ñoko ko war a jël na ay milliards def naa ci Touba ñu dégg sëñ Bass Abdou Khader mu ne xalif bi nee na Macky Sall amul dara lu ko mën a taqaleeg moom etc cetera mais yoy bu ko nit ñi déggee dañ lañ yaakaar né Macky Sall la andal lolu moy voter len Macky mais nit ñi de toute façon xalif bi lu mu wax dinañ ko top mais bu voter jotté ñun dinañ voter suñu bop mais li yëpp nak boo gisee. c'est parce que ñun waa Pastef ñoo war a gën a defarwaat te ñu bàyyi siisante ci suñu biir Californie nag bu nee génn mu jéggalu saaga yi ñu ngi ko koy ñaan quoi saaga yi du dara mais waa Pastef ñoom ñoo war a def premier pas ñu jéem a wax moom ñu jéem ko récupérer buñ ko deful Fatoumata Dansoxo bu demee ñeneen ñi dem ñun ñooy perte bàyyi leen saaga yi bàyyi leen saaga yi ñun dañu ñëw pour jàppale Sonko gars yi like leen partager leen abonné leen Mister Shake beneen vidéo